ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم وحنا نوتي حديث بو خامتاني ابو سعيد الخضري رضي الله عنه مو نكو نتالي حديث نيو نتي ابن حبان ينتي بي صلى الله عليه وسلم من خمسه من عملهن في يوم كتبه الله من اهل الجنه حديث بو ام صلى الله عليه ينتي بي صلى الله عليه وسلم من جرو ماغي كيب كوكو جيف تي بن بس غا جيفاندو لي نيوم نيب تي بن بس من يالا داف لي بيند تي وا الجنه امنا تي بنن حديث بو نيو تي مسلم dafa ne yii kenn du ko jëf ci bës lu dut ne lu dut ne yàlla bind na la ci waa aljanna yonent bi yan la mu ne képp ku xëy seeti ku tawat képp ku dem fekke fu ñuy toppatoo toppatoowee néew ba keroog ñu koy sàng jullee ko rob ko mu ne képp koo xamante ne da ngaa woor ci bës boobu noonu dem jumaa teel a dem te respecté condition wu jumaa yi nga goreel jaam mu ne juróom yi kenn du ko def lu dut ne waa aljanna nga kon ça veut ci bésu aljuma lañ koy def ndax dem juma bi mu wax kon da ngay xool bësu aljuma nga woor bës boobu noonu kon ba tey yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ngi ñuy jàngal ne kenn du woor bésu aljuma ngir aljuma bi naam waaye comme yu mel ni mën na nekk kon nga xool bésu aljuma nga woor bésu aljuma bi nga xëy dem seeti ku feebar dégg nga nga góorgóorlu dem ci armeel yi sûrement di nga tase ku ñuy denc fi jullit la rek nga fexe nga fekke jullee gi fekke fekke bañ koy denc denga nga gorel jam, dem jam jaam amatul aussi nga joxe sarax nga sarax miskin Li képp ku ko def ci bés yow amal garanti ne boo deewee ci lislaam rek yow nitu aljana nga ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax te wa maa yantiqu anil hawa kon nañu góorgóorlu même bu fekkee ne dañ koy def weer wu nekk benn yoon wala ñaari weer yu nekk yoon wala juróom benn weer wu nekk benn yoon wala at wu nekk benn yoon mais yow fexeel ba nga def ko ay yoon ci sa dund boo ko mënul tam def ko benn yoon ci sa dund nga am garanti boo xam ne da nga koy jaayanteeg sa boroom pour mucc bokk ci ñi dëkkaale ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko yàlla yombalal bi jaahi rasulillah ñoo ngi ñaan nga partager vidéo bi ba ñeneen tam mën cee jot jëriñoo yiw bii nii nga am ci yool wi képp koo xam ne bëgg nga mën lire alquran wala nga mokkal alquran wala nga jàng sa diine d'une manière générale ñu ngi lay wax ne dañuy def ay cours en ligne yoo xamante ne depuis quatre ans presque ñoo ngi ci ànd ceeg équipe boo xam ne ñu qualifié lañ képp ku mu intéressé mën nga ñoo contacter ci numéro yii nii par WhatsApp ñuy éviter appel yi parce que day fekk ñuy def cours en général duñ ko mën a jël ñuy préciser aussi que ne cours yooyu noonu c'est payant